dañu nekkoon ay candidat ak ay candidat ci élection yi mu am ñetti jigéen yu dem conseil constitutionnel ndax dañu amoon nombre de parrainage ba ñu demee gis ngeen lu xew ñu ñëpp dañ ñoo bloqué ñu ak suñuy càmmin ñuy ñett ñetti jigéen donc produit rare te lu rare dafa am solo ku nekk dem fa nga bëgg dem man ma tànn ma gëstu gëstuwaat xool ubbi tëj ubbiwaat ne suñu càmmiñ Idrissa Seck moom la jàppale te jàppale bi ñu jàppalee Idrissa Seck yàlla seede na ni li tax ma jàppale ko du li ma bokk ak moom koñ de ndax ñoo bokk tali point E loolu taxul de ay raison objective li tubaab di wax raison objective moo tax ma tànn Idrissa Seck xam ngeen lu tax réew dafa diis bopp nit ku am expérience moom nga koy dénk loolu laa gis si moom ba pare nag gis ni ñi nga xam ni bokk nañu ci coalition nga gis ku mel na monsieur le premier ministre Hadjibou Soumaré nga gis ku mel na monsieur le ministre Malick Gakou nga gis ku mel na madame Nafissatou Wade ñoom monsieur Abdoul Mbaye ancien premier ministre man nag dama ni ku liim juum waruma liim waaye dama bëgg wax rek ni ak man mi ñun ñii nekk ci wetu Idrissa Seck dañuy indi yaakaar ndax expérience bi ñu soxla mu ngi ci ñun ñii ànd ak Idrissa Seck muy lu am solo donc homme d'expérience homme d'état ba pare am programme parce que programme dañ koy seet dañ koy saytu te moom programme dañ ci gis suñu bopp parce que bu nee un Sénégal juste Sénégal boo xam ne xàjj ak seen du fa am un Sénégal prospère Sénégal boo xam ni am na jumtuwaay mbirum koom-koom bi yokk na suñuy doom daan ci profité jigéen ñi daan ci profité un Sénégal solidaire nga xam ni dañuy jàppoo te loolu moo gën a manqué léegi ci réew mi un Sénégal sécurisé nga xam ni nit ñi dootuñu tase ci mbedd mi di boxante di rayante parce que ca kaw dañu naan a oh, fañi xawma nu mu tuddee noonu voilà donc loolu di programme Idrissa Seck ànd ak ñun suñuy programme ñu doolante loolu surtout moo tax ñu choisir coalition Idrissa Seck